ngeen di si ànd sen mbokku mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaawo jëllo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ñu dottil ay xéwal yi nga xamante ne kenn du ko mën a lim ba ko dajal waaye du tee ñu jukki ci ñaar ñu di ko waxtaane mooy ñaari xéewal yañu buur bi yàlla tabaraka wa taala xéewalal te mooy bu ci jiitu bi mooy xéewalu nelaw waaye beneen bi mooy xéewalu jaamu yàlla xéewalu jaamu yàlla bi di bum ñu baaxe ñu fekkee fajaru tey ji ñu julli ko ñan yàlla suñu boroom yal nañu ko yàlla nangul waaye weneen xéewal bi mooy xéewalu nelaw bi nga xamante ne moo ñu faat ci nelaw ginnaaw si mu dellooñu suñu ruux kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ka yàlla delloo sa ruux la nga ko sante mooy nga tudd baat bi ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur ndax buur yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo ñu ne ci alquran ne ñu yàlla bokk na ci kawteef ya nekk fa moom mu di leen nelawloo ci guddi waaye bokk na kawteef ba nekk ci moom mu di leen yénkeewal bëccëg bi nga xamante ne jant bi danaan tey ba tax na ngeen daal di génn ngir dem sàkku wërsëg baleen yàlla tasaareel ci kaw suuf si yàlla nee na di joxoñal ci aaya bi mu ngi ci kawtéef ngir ña am seeni nopp di dégg aaya alquran ak di déglu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ci suuratul Rum wa min ayatihi bokk na ci samay kawtéef yama di dottil manaamukum bi leyl nelaw ba mu leen di nelawaloo ci guddi bokk na ci wa min ayaatihi ci kawtéef yaa yàlla yor te mu ñu ko dottil wan naxaar bëccëg bi nga xamante ne daf ñuy fenkal lépp li nga xamante ne éclairage la ak ferñeent ya ci nekk yàlla ne ñu ngir lan la ngir wabti wabtigaa ukum min fadlihi wabtigaaukum min fadlihi ngir ngeen war a mën a sàkku ngeneel wërsag baleen yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla ni inna fi daalika mu ngi ci limaleen joxoñal nii la yaatin kawtif boo xamante ne ña ko war a xelaat mooy li qawmin yasmaun mooy ñay nangoo déglu aaya alquran ñu di ko càmbar di ko gistu di ko bàyyi xel ak ñay nangoo déglu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xéewalu nelaw jooju buur yàlla tabaraka wa taala ni ñu allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha buur yàlla mooy buur ba am kattan ak man-man bu toll ni mooy faat mboolem bakken ñay faatu jamono ba ñuy ci dee bu ndaw di nelaw yàlla nañu nag ñetti bakken yaa ngi lenn ba ci nekk nag maa koy séparé mu ne ñu walliti lam tamut fii manaamiha bakken joo xamante ne namu makaa rey ci jamono ba mu nekkee di nelaw maa koy roof nelaw bu yemamaay di nelawu singéem walla nelaw jayaxu nelaw bi nga xamante ne nelaw bu digg doomu la mu boole ko ak la mu àndal yàlla loolu maa koy def ki ma soob fa yumsiku liti qada alayha al mawt ba léegi yàlla nee na man may faat bakken joo xamante ne namm naa ci moom ngir mu wuyu si ma ma daldi rey bakken jooju jamono bu mu nekkee di nelaw nga déggee ci ne am na ñoo xamante ne keroog bu ñu nelaw ndoor ak ñoom ñoom bi léegi yeewaguñu ci nelaw jooju ndax fara ñu jaaree dem wuyu seen borom subhaanahu wa taala buur yàlla nee na loolu sama kawtéef la waaw man may def li mu teg si ne bokkoon ci sama kawtéef ya may doxal ak bakken yooyu mooy o yurusilal uxra ila ajalin musamma waaw bakken ba ma delloo jëmm bu mu génnee kon waxtu ba ma ko soxla moo jutagul moo tax ma delloo ko ci jëmm ba mu bàyyee ko mu continuer di dund ba keroog may dajeek moom ca waxtu ba ma ko àppal kon yàlla ne ñetti bakkin yamaleen joxoñal fii ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci loolu kawteef joo xamante ne li qawmin ña koy xalaat ñooy ña nga xamante ne yatafakkaroon dañuy sóor yàlla ci seeni lépp dañuy bàyyi xel yàlla ci seen doxalin dañuy bàyyi xel yàlla ci lam leen wax walla dañuy bàyyi xel yàlla ci la leen yonent baaxee sallallahu alayhi wa sallam ba tax na noonu lañ leen bëgg a baaxee lenn ci yowmu ashura mu di la nga xamante ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa mooñu ko baaxee mu nekk fukkeelu fan ci weeru tamxarit ba ñu nekk nii ñaan yàlla suñu boroom lépp lu ñu fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi bés bi da bés bu am solo ci yonenti yàlla Muusa alayhi salaam moo tax xadiisu ibnu abbas radiallahu anhu nee na an ibnu abbasin radiallahu anhuma qaal jëlee nañ xadiis bi ci saxaabi bi ñu naan ibnu abbas radiallahu anhuma yal na ko buur yàlla gërëm moo ko way juram bu góor nee na xadima nabiyi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ganise waa madina fa ra'a alyahud tasuumu yowmu ashura mu daldi gis juif yi alyahud yi ñuy woor fukkeelu fan ci bésu tamxarit fa qaal yonent bi leneen yonent bi daal di leen laaj mu ne leen maa haada woor ba ngeen ni di ko wor bis bi lu mu doon xaalu juif yi ne ko al yahudi tontu yonent bi ne ko haada yowmu saalih bés bi dee di bés bu tedd si ñun haada yowmun najja allahu nabiyu bani israil bés bi da bi nga xamante ne ca la yàlla musale yonenti waa banu israil min aduwihim ci seeni noon fa saamahu muusa yonenti yàlla muusa daldi ko woor qaal yonent bi leneen fa ana axaqu bi muusa minkom man maa gana am palaas bu mag fa muusa maa leen gana ëppale ci muusa wa amara bi yonent bi daldi digle woor bésu fukkeelu fan ci weeru tamxarit axrajahu buxaari buxaari moo génne xadis bi ci saxiixihi ci téeréem bi wa yasuumul muslimin waaye jullit yaa ngi koy woor xaazal yowmu bés bi amalan ngir jëf bi nga xamante ne xadis bi tegtal nañ ñu ko mu di jëf ju ci xadis bu mag te tedd ngir topp sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi bés bi daldi bés bu mag ba tax na la yenent bi bàyyee xel bés bi ñu askanu jullit ñi dañ ko war a bàyyi xel ñu nit ñu ngi leen di bàyyiloo xel bés bi ci ndigle ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ba yonent bi dénk julit yu jigéen ñi soxna yi yaay yi yow sama yaay yow sama tante yow mi di soxna ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na wasiya yam leen dénk ba tax na moom lañ leen bëgg digtal bis ni tey nañ leen ko bàyyi xel waaw qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma'shara nisaa tasaddaqna wa akthirna al istigfaara fa inni raaytu kunna akthara ahli nnaar saxiihul muslim sallallahu alayhi wa sallam mbokku soxna yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndénkaane yam leen baaxee ñu nit moom lañ leen bëgg a baaxee ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM nañ leen bokk déglu la leen yenent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo leen bëgg a baaxee ne leen yaa machara nisaa mboolem soxna yi ngal la waaye tasaddaq na na ngeen baril la saraxe na ngeen baril la di saraxe wa aksirna al istigfaar na ngeen baril la ngeen di tudd astaghfirullah ma yonentu bi lu sallallahu alayhi wa sallam fa inni raaytu kunna akthara ahli nnaar la ma yàlla wonde ci waa safara yéen na si gëna a bëri kon ngir yàlla musal leen ci mbugalu safara ci càggante yàlleen seytaane di taaralal ci mabbu jëf ju baax jaleen seytaane di xuus mu di leen ci jëmale na ngeen bëril di comp ci seeni poset na ngeen bëril ngeen di togg di ko joxe na ngeen bëril la ngeen di génne sarax amaana yàlla bu nangoo sarax ba ngeen di sàkkal seen bopp buur yàlla dina leen musal ci mbugalu safara waaye tamit wa aksir nal istighfar na ngeen bëril la ngeen di tudd astaghfirullah na ngeen bëril di sàkku njéggal fa yàlla na ngeen bëril di sàkku fa yàlla yàlla suturaal ci nekkin ba ngeen nekkee ndax yonent bi neena fa inni raaytu kunna ah aksara ahlin naar la gën bari ci waa safara de ah yal laa fa gis de kon la leen si mun a musal mooy na ngeen baril sarax ya ngeen di sàkkal seen bopp waaye na ngeen baril sàkku njéggal ba ngeen di sàkku fa seen borom bu ñu sàkk sarax nag jëlal li sa pochette nga joxe jëlal li nafa nga joxe yow sama maam yow sama yaay yow sama tànt yow sama jigéen jëlal la la yàlla dënk as tuut jàppale ko ki nga tane toggal ñam bu doy neex yóbbu ko ci jàkka ji walla yëkkalal mbokk joo xamante ne wóor na ne yaaka tane walla demal ci grande surface yi nga duy sariyo bi ba mu fees dell dem jox ko jirim ba baayam dundul walla nga jox ko veuve ba jëkkëram làqu walla nga jox ko miskin ba nga xamante ne aajowoo na ko ndax boo xelaatee boo tolloo ci ñoom fañu toll geste bala yonent bi ne na ngeen ko bëril di ko def mooy sàq sarax bëgg nga ku la ci taxawee kon ka tollu ci moment juuju geste boobu nga koy defal boo ci tolloo di nga bëgg ki la ka defal de am déet waaw kon boo nattee affaire bi boo jëlee doxalin mi nga renversé ko jëlee ko ci ki ñàkk jëmale ko ci sa bopp di nga gis ne a ah, ndekete lii de war la waaye léegi-léegi nag ndeysaan am na sama gaañu baax ña xam ñu mën a joxe ñu tabe ci joxe leneen yàlla wërsëgal dañ koy appliquer ndax yàlla da leen jox avertissement mu ne leen wa mimma razaqnaahum yunfiquun xoolal la leen yàlla tagge yàlla da leen tagg waaw sama gaañu baax ñooñu sama soxna yu baax yooyu sama tant yu baax yooyu xoolal la leen yàlla tàggee mu ne leen wa mimma razaqnaahum waaw la leen yàlla fi yunfiquun dañ si comp as tuut ñu di ko dépensoo ngir dugal ko fi yàlla gërëm mu doon fi mu sopp kon weer waa ngi ni ngéeneelu weer waa ngi ni bés bu gën mu ngi nii ci bés ba nekk ci weer wi weer wi yëpp ngëneel la ndax ca lañ lay ubbil xët bu bees bokk na ci koor ba ngay woor fukkiilu fan bi ñu faral la sa bàkkaar ya nga jiitaloon daaw kon xët bu bees bañ lay tijil day vierge dara du fa nekk waaw day nekk xët bu bees ñu tàmbale ko ci bindal la tiyaaboy koor ba nga wooroon ne yonent bi daf ne la woor fukkeelu fan bi dañ lay jéggal say bàkkaar kon registre bu bees bañ la tijil ci at bu bees bi ci atum jullit ñi nekk ni tàmbali bi mooy koor ba nga wooroon ak jéggal bañ la jéggal ci daaw boo ci boolee la yonent bi ne yaa ma'shara nisa yen mboolem soxna yi tasaddaqna na ngeen sàq sarax na ngeen sàqal seen bopp sarax na ngeen saraxe lu bari toggal demal ci grande surface yi defal achat bu doy nga yóbbul ko ki ko soxla yónneel ci gone yi nga xamante ne ñu ngi fi ñuy nangoo yóbbante képp ku leen yónni amal la nga dugal jox gone yooyu ñu yóbbante ko ci kën ka war a yóbbante te mu soxla ko mu dem jël ko fañ koy jëlee mu daldi bànneex waxtu wi ñu nekk ni bés bu ñu nekk ni jamono ju ñu nekk ni ñu bindal la ko ci sa registre dugal nga mbégte ci xolu jullit loolu ñu bindal la ko sarax ba nga sàkkal sa bopp yow sama yaay yow sama tante yow sama maam yow sama jigéen yonent bi nee na na ngeen baril la ngeen di sàqal seen bopp sarax waaye na ngeen baril tamit la ngeen di tudd istigfaar na ngeen baril astagfirullah ya ngeen di tudd ci nu mu gën a bari ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na keroog ba ma rañaanee ci kaw keroog ba ma yàlla fa moom may visite arjanna di visite safara la ma gën a gis safara ñu doon ñu ci gën a bari mooy jigéen ñi kon la leen fa mën a yóbbu lu yomb la la ngeen du bàyyi xel ndax noon bu mag ba ñu yàlla moo ñaale ci jamono ñuy dund ak moom di seytaane ba tax na yonent bi nee na pour ngeen rëcc ci mbugal woowu ak ci kër woowu na ngeen bari la ngeen di sàq sarax di ko jox njabootu yàlla ñi nga xamante ne seeni loxo jotut seen ginnaaw miskin yaa ngi fi faqir baa ngi fi yatim baa ngi fi ah ki jikkiram làqu mu ngi fi mbokk bu soxla te munut laaj mu ngi fi nitu diine yaa ngi fi jàngkatu alquraan yaa ngi fi waa nitu jàkka yaa ngi fi ilaa axirihi bekkeroog yow nga gis ka nga war a mën a jël lanka yéene nga jox ko ngir idxaalul surur fi qalbul muslim ngir nga dugal mbégte ci xolu kenn ci julit ñi yonent bi nee na bi léegi wa akthirna al istighfar na ngeen bari la di tuub di jéggalu fa yàlla di ñaan yàlla sutura ndax la ma gën a bari la ma gën a gis ci safara ñu doon ñu ci gën a bari mooy jigéen ñi kon ñaari mbir dong moo leen di mën a fegal ci kër gu waaw mooy kër googu kër gu ñàng woowu ñaari mbir dong moo leen ci mën a musal mooy ngeen bari li ngeen di sàq sara ak ngeen bari li ngeen di tudd astaghfirullah mbokk yi Rewmi FM 97.5 lii lañ leen andiloon ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci waxtu wi ñu ñaan yàlla suñu borom an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar yaa ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi lu jub si kàddu gi ñu santee ko yàlla lu si dëng ñu ngi koy tuub di leen wax ne wa kullu amin wa antum bi xayr di leen wax déwénati leen wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin